terme yi mu ngi jógee ci seen projet ak li ñu wan nit ñi parce que nit ñi dañu sonnoon ci corruption dañu sonnoon ci kumba am ndey ak kumba amul ndey nit ñi dañu sonnoon ci xam ne réew mii di Sénégal mësul ñàkk alal te nit ñi jànguñu di xiif fadu fajuwuñu boo amul xaalis doo faju nga gis koo xam ne barki dem boo njaay yéen ñi sax ci yéen la gën a mett yaa ko doon may ñaar fukk parce que li sa baay tekki baayam tekkiwu ko li sa ndey tekki ndeyam tekkiwu ko mu di la romb ci xaalisu sàcc boo xam ne yow jote woo ca loolu naqari ñëpp ba nit ñi bëgg changement changement kanam tuuti ñu def changement pour li ñu bëgg ñu am dafa baax te looloo gën ci yéen looloo gën ci yéen parce que réforme yi delloo nit ñi seen dignité la delloo nit ñi seen alal justice bi bañ a am kumba am ndey ak kumba amul ndey justice dafa diis warul am xàjj